sama boobu ko ñu koy am nii ah gars yi taal nii arrangé wuyu lu yoo bëri suñu Allez

laata léegi nii tàq lay def nii tàq. policier yi nag bu biir benn koñ nag la ñuy dugg. ñu ñor réew nit ñi di couvre-feu ñuy daa illa en plein couvre-feu non <laughs> am mi dinaa ñor réew tot tot waay xoolal lii rek